dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji bay boo mu jël ay matukaayam li nga xam ne moom lañ nemmeeku léegi ci réewum Sénégal maanaam ay activistes yoo xamante ni ñoo mujj soppaliku ay opposants maanaam activistes yoo xamante ni dañuy xëy suba ba ngoon di yàkk Macky Sall lu mel ni maanaam musiba ak mbelengaan yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na opposition bi ci réewum Sénégal jamono ji kenn déggatu leen waaye Macky Sall am na lu ko doy sëkk ndax ay activistes yoo xamante ni maanaam saf nañ sàpp tàng jër ñoo janoo ak Macky Sall maanaam di defante ak moom di lijjanti ni nga xam ne moom lay doxalee réew mi yéene kaay gi ne nag ku ci mel ni Guy Marius Sagna mi nga xam ne li ñu ko jàpp ci réew mi jamono ji kenn muntu ko wàññi ak ku si mel ni Karim Xurum Xaq mi nekk ci kasu bi ku si mel ni Assane Diouf mi nga xamante ni mooy ki dàq saaga ci réew mi maanaam mooy numéro un ak ku si mel ni commissaire Sadio mi nga xam ne bër de moo njaay moo fi bind Macky Sall ab lettre boo xamante ni lettre bu tàng jër bay wàññax-wàññaxe yéene kaay gi ci réew mi ko di mu ñu xamal ñu jamonoy Abdoulaye Wade gisoon nañ ko mel ni Birahim Alioune Seck Assane Dioma Ndiaye Seydi Gassama engagé woon nañ lool ci xeex bi ba léegi nii sax engagé wu nañ waaye nag na nga xam ne moom lañ taxawe woon jamonoy Abdoulaye Wade jamono ji taxawee wuñ ko yéen kaay gii di réew mi ko dëjee ci xëli màkk sebe mu xëy di ñu xamal lan ñu Ousmane Sonko génn yi nga xamante ni mu ngi koy génn maanaam sorti yi di ñaawlu ni nga xam ne moom la Macky Sall yore réew mi loolee daat nay tax opposition bi ñu daat leen di fàtte keroog bi nga xamante ni mbir mi commencé na maanaam coronavirus ci réewum Sénégal opposition bi dañoo jox Macky Sall carte blanche na ko sa ginnaaw Macky Sall yi doxal opposition bi daan na pata pataaral noppi kenn déggatu leen maintenant Ousmane Sonko la ñuy dégg Assane Samb xëy daal di koy dëggal nee na li nga xamante ni Macky Sall waxoon na ko nee na danañu réduire ñi nga xamante ni ñooy opposition bi maanaam simple expression loole Macky Sall jëfe na ko jamono ji mën nañoo wax ne opposition bi ci réewum Sénégal tekkiituñu dara xanaa bu passé activiste yi nga xam ne maanaam ñooy xëy ci Macky Sall di ci gont njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag war naa bàyyi maanaam suñ na ko sëbët yu suufa nga si rek mu jàpp dugal la si kasu bi pare di tudd article quatre-vingt loolee kàddu asan Assane Samb la yéen a kaay gii de las mu xëy di ñu xamal naa ñu Boubacar Sadio mi nga xam ne moo fi bindoon Macky Sall lettre bu tàng jër moom ab dossier am jël nañ ko jébbal ko procureur yéen a kaay gii de Vox Populi mu xëy di ñu xamal naa ñu lu jëm ci wàllum dooraat njàng mi ci élèves yi nga xam ne ñooy def examen ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin wii nga xamante ni moom la ñu dëgmal la ko jàpp waaye nag lycée Seydou Nourou Tall maanaam nañu leen si génne ba ñu seet si ndax ñoom nee nañu amuñu am ndox te nag mënuñoo ubbiwaat ay école yoo xamante ni amul ñoom nee nañu loole maanaam du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëk ndax wóorul ci réew mi te jàngoroy coronavirus ji ma ngi law ci réew mi yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal laan ñu àpp bu njëkk ba ba ñu ko njëkkee jàpp ay jàngalekat ñoo amee woon coronavirus taxoon ñu daal di koy dàq waaye nag jamono ji ndax du ñu ko dàqaata ndax ñàkku ndox gi nga xamante ni moo am ci réew mi sud ko di jee ne bu ñu ko dàqee danañu amul lay ndax jamono ji ndox amul ci réew mi yéen a kaay gii de mbir moomee nag wax ci askan wi nga xam ne ñoo dëkk géréw maanaam ñoom mer nañu ba maara day taali mer woon lool ki nga xam ne mooy Macky Sall ndax moo sife woon ab décret jël seen suuf soose maanaam joxe ko loolee moo tax ñoom nee nañu jamono ji daal pare nañ ngir xeex yéenekaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa waa ànd gësëm ñoom nag ñoo ngi sàkku ci nguurug Sénégal maanaam ñu gën a jël seeni matukaay ci woppi coronavirus ndax jamono ji maanaam gis nañ ne ma ngi law ci réew mi Sénégal jamono ji ñi fi amee coronavirus ba mbir mi commencé ba léegi ëpp na juróom benn téeméeri junni yéenekaay gi nee na lu toll si juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay nit faatu nañ ci yéenekaay gi de la Tribune nee na li nga xam ne moo yot Sénégal maanaam ci yoppi coronavirus ji neexul jamono ji askan wi bàyyeeku nañ waaye nag mbir mi ma ngi gën a tar yéen a kaay gii di Dakar Times xëy moom yóbbu ñu diiwaanu Mali ci askan wi nga xam ne ñoo fa nekk suba ngoon guddee ba cëkk maanaam di manifester ngir nag bëgg faa jële Ibrahima Boubacar Keïta journal bi nee na France jamono ji maanaam dañ na patta pataaral ci mbir mi mën nañoo wax sax ne dañoo dummoyu Ibrahima Boubacar Keïta ci crise bu rëy bi nga xam ne moo fa am waaye nag Ibrahima Boubacar Keïta moom jamono ji ay bisam maanaam ci réewu Mali dañu koy wàññi ndax ñoo jugal seen bopp bëgg ko jële ci réew ma yéen a kayi gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naa ñu nag jigéen ñi nga xam ne dañuy am doom ba pare daal di kay rey jamono ji bëri nañ lool ci réew mi ñi nga xam ne ñoo nekk sa kaso ba ñu bëri loolu moo leen fa yóbbu journal bi nee na am na ku tudd awa moom nee na bi mu amee doom maanaam nag dafa daal di dagg li nga xam ne mooy cordon ombilical bi la ko waral ki ko ëmbal moo ko lànkoon ku ñu wax sagara kookee tamit nee na bi mu amee doom dafa rey doom ji li ko waral dafa bañoon a ruusloo ak njabootam am na beneen xale bu jigéen boo xam ne moom nee na da doon sëy am ñaari doom ginnaaw bi mu tasee ñu ëmbal ko mu am doom si la rey doom joojee am na beneen xale bu jigéen boo xamante ni tur wi aala commencé mu sant mbóoj moom tim la mu xam le nee na dafa nekk ci biir néegu sëy jëkkëram daal di voyagé ñu ëmbal ko ci ginnaawam xamul nan lay def moo tax mu jël doom ji daal di koy rey journal bi di réew mi quotidien moo xëy def ci dossier bu rëy boo xamante ni témoignage sa doy na waar yéenekaay gi nee na lu toll si ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay kër yoo xam ne daaneel nañ ko cité gàddaay waaye nag li nga xam ne moom la waa turbine xëy di laaj mooy promoteur bii di Babacar Fall loolee maanaam kan moo koy protéger yéene kaay gii di libération Ousmane Sonko daal nay ñaawlu bu baax a baax jigéen ñi nga xamante ni sa gaddaay dañu leen doon toroxal di leen maat maate di leen dóor ay grenade lacrymogène stade yéene kaay mu ñu xamal nañu Liverpool tey jii dina football ak Crystal Palace waaye nag su gagné suba Manchester City Chelsea daal di koy gagné bu boobaa Liverpool mën naa jël championnat bi